ku réeréy meloom na jóg diglu kon lee mu xam ay meloom meloy Bàmba yaa ngi ku réeréy meloom na jóg diglu kon lee mu xam ay meloom yërëm ndaw teral aw ganam teral mépp mbokkam teral dëkkandoom di tallal ndi jooram mu jëm gépp wet di jox ndaw di jox mag ba koo seeruluum du wax nit ku teew ku teewul lu bon du jëw nit te bëggul ku jëw nit fi moom bu dee dox du geesoo du piisit bëtam du soppiwu doxiinam du sànni yoxoom ragal yàlla gaa tax du soppi cëram defar nay cëram ngir yëbul yàlla moom defar nay cëram ngir yëbul yàlla moom ku baax ku bon képp fab teral ku muy gis da koy fab def ni doom yaram baa nga ngoram gaa ko raw kilee jiitu kenn dootu weddee kamiim xolam baa nga dem set soreeku gu tilim du ëmbal nitu ay du daanee ka du yab du lor du yàqub daram dafay faj lu bon mbaa bu fañ ne sëriñ ahmadu ndumbenee bàmba mi du am kat moroomam dafay am boroom waxam jeeka wér ngir da fab defar te taalal ko taalam bu dul fay du giim amul kem amul kem ndaxam ku jeexub kemam boo dajee du woom sëriñ seedi biddiw yi muy jant bi ku koy tëkkalee kub sëriñ moo ka juum mbiram raw na gët yépp raw mépp xel toroxloo nga bëri yépp jaajëf xadiim danoo bon ba dee nag te tàggoo ndey ak i baay ak i bokk ngir bëggi koom te fiy joxe koomi tey ak ëllëg sarax noo sarax koomi kun far yu woom te am laa di koomum ëllëg jàpp tey lu dul yow sobee kiy sogar ki góom ku def tey lu dul jóg te dal dawal ba am say ngërëm nag ngay def araam ku ku am lëf lu dul yow amul lëf lu dul ngelaw rekk ak nax yu bon baate doom defal saa digg ak yow mu mel ni masin ki deeful bayee kiy mbiram ak sagoom boroomam da koy fopp kay diw di yër di say tookeyer def ma ni yaa xadiim bu may bëgg man lëf bu may wut lëfit lu dul yow murit dëgg lii diw meloom